voilà lamin mu ngi jógee euh, Tigo j'aimerais qu'on parle euh, de ces offres yi euh, Tigo jagleel ay kiliyaanam regardez d'abord jotaay yi am na jotaay cool am na jotaay confort ak jotaay xéwal alors Pape Samba dama lay bàyyi nga puluf wala nga def ko jiifi jaafaa jëf may ma juste benn jotaay comme quoi jotaay yi benn bu ci nekk amal na njëriñ ay kiliyaan yu Tigo regardez li de xanaa mooy ku am ku amul yaay nàmp maam dëgg la sax ay jotaay laa ko laajoon mais mu jox ma itam beneen boo xamante ni c'est tellement bénéfique pour hmm. clients yi euh, Lamine merci d'être la alors Tigo toujours dafay jege ay clients am merci je pense une question qui vient tout le temps euh, secret Tigo laa comprendre lu quoi euh, li ma ne sànq ñi nekkoon Lebaara sax jóge dañ fa dem Tigo. merci beaucoup Pape di leen nuyu di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di nuyu téléspectateur TFM. Euh, surtout suñu client Tigo yi euh, question bu am solo la proximité dafa fekk bokk suñu ADN comme ah innovation nu mu bokkee suñu ADN ah. euh, parce que dañu respecter suñu ay clients mm-hmm. bëgg am un contact permanent avec eux mm-hmm. loolu mooy tax ñuy jéem la di leen déglu mm-hmm. di lan moo leen ëppal solo ci li ñuy utiliser seeni téléphone mobile mais tolluwuñu ci déglu kese dañuy toll aussi ci dem dem lëkkaloo ak ñoom. moo tax teg yu concret ah. voilà teg lu concret nekk ci terrain bi ak ñoom di leen conseiller di leen expliquer. Mm-hmm. parce que aussi il suffit pas d'avoir juste une offre de faire de la com là-dessus et de ne pas aller interagir avec les clients. Mm-hmm. donc l'interaction là c'est quelque chose d'extrêmement important pour Tigo. Mm-hmm. loolu moo tax ñu nekk ci comme tu le sais la tournée Jotaay mais. Pape Pape euh, Massamba li mu def baax na parce que Bougna aussi dafa nekk une une offre qu'on a que nous avons lancée depuis la l' dernière. Mhm. mais qui reste d' actualité. Ah oui. à tel euh, point que dañ koy suxaliwaat si suñu ay communication. Mhm. Bougna euh, gis nga li li mu li publicité bi wane mille francs égale 4000 mille égale 20000. da ngay wax ba gaañu. validité <laughs> illimitée parce que aussi ñun ñun ñun loolu la ñu yaakaar ne moom mooy moo pertinent. la validité illimitée et euh, bonus valable tout raison. ñun amuñu xaajal ak seen. c'est-à-dire quand on donne il y a pas de demi-mesure. duñ la may lii nangoo ko fële. validité illimitée. y a pas de bu la tigoo mais bonus tigoo rek nga mën a woote. non non non non c'est, c'est une validité illimitée ah et euh, ce bonus est valable. tout réseau. ba donc important. Euh, mais donc loolu ñu ngi koy beesalaat bi buña bi boo ko jëndee ci à travers Tigo Tigo Cash euh, tu n'as plus 400 pour cent mais tu as 500 pour quand tu achètes 10 validité illimitée et valable tout réseau. 10 000 donc. ah fii amee ci puces yi. puces yi. fu ñu koy amee ngay laajte. loolu dama ci ñëw léegi léegi léegi. loolu dinaa ko ko dinaa ko ko wax léegi mais dama bëggoon dellu si tuuti rek ci confort bi. parce que c'est c'est c'est c'est notre euh, suñu offre yi gis nga ko muy euh, jotaay kóol di jotaay xewal. Mm-hmm. Euh, ñi nga xam ne ñu ngi ciy nit ñaa ngi ciy gis seen bopp jotaay kóol xale yaa ngi ciy gis seen bopp bu baax. Mm-hmm. à cause de cette. valeur ajoutée que nous avons apportée sur le marché. Mhm. Euh, qui veut que avec nous vous avez Messenger gratuitement vous avez. WhatsApp, gratuitement. Mhm. Mhm. donc euh, xale yaa ngi ciy gis seen bopp. xewal aussi nit ñaa ngi ciy gis seen bopp parce que foofu aussi xewal c'est une sorte de buña permanent mmh. c'est-à-dire euh, euh, tout le temps saa yoo rechargé soxla soxlatoo short corde ko code euh, soo rechargé am nga 400 pour cent. Mm-hmm, mm-hmm. avec notre offre xewal. mais confort bi yow nga moom nga gën a miin. Ah waaw ah confort euh, qui est une offre tout en un. Euh, avec l'offre mois le palier mois qui veut que avec 10 000 francs. Mm-hmm. vous avez 10 heures d'appel tout réseau. 10 heures d'appel 200 SMS tout réseau. bijou bijou bijou. biisu xam na ko voilà biisu xam na ko bu baax a baax donc loolu aussi dañuy dañ euh, dañ koy fàttali tout le temps et moi je pense que à travers nos offres là plus personne n'a de ama amatoo looy xaar pour ñëw Tigo non non non non no amatul bipé moi je vois des amis d'autres réseaux qui me bipent encore je dis mais venez chez nous vous n'avez plus aucune raison de ne pas être Tigo Mais bipper les gens, arrête. Non, quand tu es Tigo, tu as suffisamment de crédit pour appeler qui tu ah veux, appeler tout réseau. Donc, euh, c'est extrêmement important. comme on dit c'est trop beau pour être vrai en fait man par exemple quand j'ai vu l'offre comme da ngay dépenser crédit lu bëri mhm. j'en ai parlé un moment il me dit c'est pas possible donc ni ñu seetaan publicité bi ñu xoolaat affiche bi on s'est dit. est-ce que c'est possible est-ce c'est c'est ça. loolu ma thème du matin da que dafa dafa neex trop Pape Cheikh. Ah, dafa neex ba ëpp amul neex na de. weddu gis bokk ci de toute façon bon euh, je pense que Bijou la la la la expérimenté Pape aura l'occasion de de l'expérimenter à partir d'aujourd'hui parce qu'on a décidé d'en faire notre brand ambassadeur. Et... voilà ñu nit ñaa koy jëfandikoo mi ngi leen di. bu <laughs> ngeen ko réccu de. <laughs> jënd ma fal ambassadeur dafa wóor fii Sénégal. wallaahi loolu loolu xam nañ ko. waaw lay nekk de parce que dama am sama staff ba pare. dëgg la moo mon fils sera mon adjoint. exactement. <laughs> donc Pape Pape ma ma ñëw ma ñëw ak téléspectateurs yi aussi ci ci euh, tournée bi. tey ñu ngi au moment où nous sommes en train de parler nous sommes à Diourbel. gis nga ni depuis le 12 juillet dem nañu. ci dëkk euh, dem nañu Thiès dem nañu Joal nekk nañu dans la dans dans dans toute la région de Dakar. Euh, dem nañu Mbour. Mhm. donc aujourd'hui depuis euh, dimanche on est à Diourbel. donc ñu ngi dans dans le Bawol di woo euh, suñu client wu Bawol yëpp. Diourbel waa Kër Mara Dieng la voilà ñoom ñu fekk si ñu ci marché tey ñu ngi marché Diourbel. pour véritablement montrer. Euh, cette innovation majeure que tu connais, qui est le, le Digital Bus, mm -hmm. qui aussi, euh, euh, euh, euh prouve la générosité de Tigo par rapport à ses clients. Mm Digital Bus à travers lequel, ou à l'intérieur duquel, les clients peuvent expérimenter notre, notre 3G+, gratuitement. Mhm. Nous avons aussi une offre UBS et affaire mhm. Mhm. Donc c'est extrêmement important pour que Bawal gagne gis li Tigo yéene. Euh, client te te te Diourbel da ngeen fa bëri ay client bu baax a baax bu ñu jógee ci Diourbel dinañ dem. Mbacké dinañ dem Touba. voilà dinañ dellu soit un tout petit peu Mbour parce que dañu am aussi benn programme bu yaatu ak euh, waa Kankurang bi. Mhm. lël yi euh, mhm. accompagner leen par rapport ak proximité. oui mais li neex mooy surtout Kankurang yi. day am day am lu ñu tuddee nuit blanche. exactement dem katu Kankurang yi xam nañ ko. donc nuit blanche yooyu mën ngeen cee profité ak jotaay. jotaay ñëw ñëw jënd seen plus tigo ah, euh, nit ñi wan leen ah. affaire yi nu muy demee ah. voilà euh, donc euh, ñu ngi leen di jox rendez-vous donc vendre tey jii nii Diourbel mais à partir de samedi vendredi samedi on sera à Mbour dans le cadre des concours ma amaat aussi benn nouveauté bu mhm. may indi tey concernant Tigo Cash mhm. Tigo Cash di suñu kalpe kalpe mhm. client Tigo yi Tigo Cash nag nekk ci benn promotion bu yaatu bon bi nga xam ne ab euh, saa yoo fayee sa facture SDE canal wala nga jënd sa woyofal mhm. wala nga fay sa facture Sénélec mun mhm. euh, nga bokk ci ñu ñuy tànn ñuy gagné cent mille francs par jour très bien ab euh, po bi mi ngi door depuis la semaine dernière mhm. et jusqu'au octobre saa yoo le maximum que tu payes de facture, le, le tu, tu, augmentes tes chances de gagner 100 000 francs par jour. Ah, Chaque jour jusqu'au 21 octobre. D accord, d accord. Donc, il euh, y a multi euh, tabaski rek parce que nous, nous savons àdduna xaw na métti tuuti euh, bu ñu leen jàppalee ci tabaski dañuy continuer gi ñoom jàppale leen ci rentrée bi moo tax ñu dem ak ñoom ba 21 octobre d'ici au 21 octobre mm-hmm. euh, mën nga fay sa facture mm-hmm. euh, te damay insister tuuti ci paiement facture bi mm-hmm. di wax ni ñun ñoo am le le le tarif le plus bas du marché parce que à partir de francs tu peux payer ta facture. à partir de 100 mm-hmm. par rapport ak yow sa montant de la facture. Mm-hmm. soo amee à à 100 à partir de 100 francs tu peux payer ta facture. donc c'est véritablement aussi une offre euh, très concurrentielle. Mm-hmm. parce que ñeneen ñi ñu ngi ci yeneen ay palier euh, palier de prix. mais ñun dañoo yërëm askan wi. wàccee suñu ay prix ba nga xam ni à partir de 100 francs mën nga fay SDE euh, facture Sénélec jënd sa woyofal wala nga fay sa facture Canal. voilà tey loolu laa indi woon. merci Lamine di fàttali di fàttali aussi les tous les clients Tigo que jot na ñu identifier leur puce. parce que wax naa la la dernière fois que j'étais sur ton plateau que euh, régulateur bi daf ñu teg ay nouvelle nouvelles règles yoo xam ne ñun tamit dañ ko war a wàccee ci suñu ay clients. Mm-hmm. Euh, euh, il faut ñoom ñëpp ñu mën a identifier dafa te dafa yomb ko def facilement facilement il suffit d'avoir ta pièce d'identité de taper dièse 184 dièse mhm. et puis ñu wan la nan ngay identifier ba nga pare ci quoi parce que dinañ egg si fenn foo xam ni voilà dafay dafay métti voilà boo donc j'appelle tous les clients Tigo voilà. de véritablement identifier une bonne fois pour toutes mhm. euh, leur SIM comme ça du ñu am benn problème ak régulateur bi quoi. super voilà loolu la fi indi woon merci euh, mais balaa may dem nag. Euh, direction Tigo daf ma yónni woon ci yow. waaw euh, xaw ma ndax damay ñëw foofu. dama ko dama koy jël si Alfi Alfi yaa koy joxe solennellement. Alfi kaay joxe ko solennellement. voilà voilà waaw kaay joxe ko solennellement. waaw. Euh, non yow da ngay am Alfi da ngay joxe solennellement lañ la war ko joxe. d' accord te bu ci dugal sa laaj bi ah. voilà fexe tëjal leen ma micro en même temps. tëjal tëjal leen ma tëjal leen ma micro Alfi en même temps. voilà donc Alfi euh, qui va me remettre. téléphone boo xam ne su ma neexee baxal ko. su la neexee def lu la neex. waaw voilà euh, donc téléphone. Euh, day dugg ci ndox. day def yëpp waaw. c'est c'est on peut le dire. Oh, c'est des moo moo am. Euh, mbégte mhm. di teral Pape Cheikh Diallo. merci <laughs> <laughs> parce que dañu xam yéene bi mu am ci ñun dañoo xam aussi. li ñuy jàppalee ci liggéey bi. mënoon nañu sponsoriser émission bi man am na jamono ma bëgg a démissionner sax pour ñu liggéey Tigo. non toogal fii nii. Tigo a nekk la ñu ngi ñëw ah a nekk ñu ngi dal seen kaw. waaw ah. ah. yéen waa vous êtes avertis Tigo FM ak Tigo TV mu ngi ñëw ah. mais très attention. ñu ngi ñëw dal seen kaw Pape non dafa am solo parce que mënoon nañu ñëw sponsoriser émission bi. nga def nga def ci li la li li ñu sëkk ak nga noppi après nga dem ci leneen mais dañu gis. yéene bi nga am ci Tigo mm-hmm. et véritablement nous nous sommes honorés de travailler avec vous dans le cadre de cette émission et dans le cadre aussi de la promotion de nos différentes offres donc euh, téléphone bi nii ñoo la ko jox ci xol bu sedd guy Alfi mi ngi nii un Samsung Galaxy S7 voilà bi ngay avec bi ngay saafara. voilà ay ta nouvelle puce. tu avais déjà une puce. voilà mais bi dama bëggoon mu nekk une puce commerciale. super voilà donc. Euh, numéro bi yow moom merci. en plus c'est comme l'autre numéro. voilà voilà comme l'autre là. sama benn numéro il faut juste mettre en 76. voilà 76 nous on est on est très content. merci beaucoup à très très bientôt. à bientôt allez Alfie au revoir. allez Alfie tey maa fële. d'accord. man téléphone bi dama koy dagg diis xaa da bëgg ma dagg ko def ko diis. <laughs> laa li sama ñàkku mbootaay la sama téléphone dafa réer sama mbootaay la man maa gën a réer li téléphone. sama anniversaire jox maa gën a a réer le téléphone. voilà les parties. voilà léegi bu ñu jógee bu ñu jógee. bu ñu jógee léegi nag bu ñu jógee ci Tigo nag. dama bëgg nag ñu dem ci Sofia <laughs> ñun fu ne la ñuy